marché bu Thiaroye yi daanaka mu ngi fees del soble mi nga xamante ne moom lañu war a jëfandikoo ngir màggal bésum tabaski loole nag ki ko xamle mooy commerçant yi ñu fekk ci bërëb bi. am na nag am na produit bi am na soble am na pomme de terre am na dafa cher parce que pomme de terre bi. am na ñeneen ñu dese woon mais indien yi am na ñu ngi soog a daanaka ñoom seen produit bëri na mën na dem ay weer ci kanam mais soble bi moom téewul am na am na bu baax a baax a baax a baax. quand même client yaa ngi ñëw. client yi ñu ngi ñëw. ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw soble mu ngi fi li woon mooy li fi nekk mën nañ cee dund ci tabaski gi ba mu ba mu jeex. waaw soble bi moom vraiment euh, dana doy parce que boo xoolee li fi nekk ak stock bi da lay nii ni soble bi na doy parce que boo xoolee. presque ñu nekk fii duñ mën a seen ñi nekk folee ndax soble parce que euh, bagage bi dana doy daal man li ma gis ni mu war a doyee waaw. waaye commerçant yii lée li nga xamante ne loolu moo leen naqari mooy génn bi nga xamante ne jëwriñ ju ñu dënk wàllum commerce fii ci Sénégal def na ko te mu wax ni commerçant yi daanaka jënd nañu ba noppi ay stock ba pare denc ko ci seeni magasin ngir rek mun a porox lu di yokk prix soble bi. bi ma déggee wax jooju dafa nekk wax ju ma ju ma bett parce que dafa dañoo jël tuuma teg ko ci kaw commerçant yi te parce que loolu amul ñun dañoo yor suñu xaalis. dem àll ba di jëndi boo gisee la ñuy jënd bu ñu jëndee 1000 francs cent francs lañ ciy jéem a teg pour man ci am suñu suñu bénéfice mu mosuñoo jënd di stocké dañuy jënd rek ñëw jaay mais yokkewul ci ñun ma ngay yokkoo ci ñi nga xam ni ñoo koy bay producteurs yi ci boppam. ñoom ñooy def saa yu ñëwee ñu yokk seen soble nga jënd ko ak prix boo ko mënta jëndee ñun ñu jënd ko 500 francs ak ñu jënd ko 15 bi moo yem ci ñun que benn 500 francs lañ ciy dàq. loolu information yu dafa jot information yu baaxul information yu jot parce que ñun xam nañ ne xam nañ li ci bagage bi ku nekk xam na ne produit bi du ko produit boo xam ne da nga koy jënd di ko denc produit la boo xam ne danga koy jënd di ko jaay. ndax amul kenn ci ñuy bay ak ñuy liggéey bu commerçant yëpp kenn ko xamoon ne sabab la dana dem 15000 francs amul amul. semaine bi ñu jaay nañ douze mille ñu bi ñu jaay fii onze mille ci àll ba onze mille cinq cent transport dikk di jaay bu ñu sukkandikoo ci Pam Ndaw ak Bac communication bi nga xamante ne ministre def na ko ay kàddu la yi nga xamante ne daanaka teguwul ci plaasam ndax loolee mën na tax ba seen liggéey bi di sooxee. ministre moom ñoom daanaka ci ay fausse communication si la nekk parce que daanaka lépp lu ñu wax ñoom seen communication yëpp ay erreur la. parce que man jàpp naa ñoom demuñu si terrain bi ni nga xamante ne noonu lañ ci war a demee. kon moom communication bi muy joxe ak li nga xamante ni moo nekk si bokkul. commerçant yi moom dañ leen a yàpp di jël ay tuuma di teg seen kaw c'est parce que ñu koy wax xamuñu informé wuñu ñëwuñu ci commerçant yi waxtaan ak ñoom ba xam yan jafe-jafe moo waral soble bi di yokk ak di wàññeeku. naka noonee ana lan la ñu mën a jàpp ci prix yi nga xamante ne yooyu la ñu tëral ngir jaay soble si. ñëwuñu ci commerçant yi waxtaan ak ñoom ba xam yan jafe moo waral soble bi di yokk ak waaw lañu ñu war a def koy mooy dugg ci producteurs yi place yi nga xame ni ñoom ñooy produire. wala wala béykat yi nga xam ne ñoom ñooy produire soble bi wax ak ñoom ne leen soble bi na ngeen ko yemale prix temps waaw suñ ko waxee ak ñoom ba d'accord ci loolu am naa yaakaar ne mën nañ xool marché bi ni muy demee au niveau du marché ñu yokk ko ci marché bi na nga xam ne noonu lañ koy jaayee muy prix en gros muy prix demi gros muy prix détail mais nag suñu bëggee jël lépp sauf ko commerçant loolu amul ministre bi li mu wax amul. Solutois bu fi doon bu fi ñëwoon tey léegi soble mbay bi léegi ñuy jar quinze mille wala muy jar quatorze mille ñu ni prix yooyu waru ko jar ba moom mu def commune ba moom mu def mu mu mu mu def génn def déclaration ñu day ubbi frontières yi pour yeneen sobre réew yi dugg si Sénégal. te yeneen soble yi bu bëggoon a génn tey dem dugg si yeneen réew si réew yooyu duñ ko nangu. buñ sukkandikoo ci ñile acteur ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci wàllum soble faw rek autorité yi faral di wàcc si terrain bi ngir mën a janoo ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci wàllum njaay soble. te aussi tamit ñoom dafa leen dafa leen war a jugal war a jaral jug ñëw ci terrain bi xam situation yi nekk terrain bi parce que moom bu fekkee dafa def déclaration def déclaration joxe prime wala mu def déclaration ni soble bi lii la war a jar loolu moom yaakaar naa dafa joxe dafa joxe prix boo xamante ni nekkul prix boo xamante ni lu abordable la. ñoom ñile di wax yit état bu Sénégal faaw mu favoriser consommer local bi nga xamante ne moom la ñu amal fii ci réew mi laata muy def promotion ay produits yi nga xamante ne dañ koy jéggaane. man jàpp naa ne war nañ jàpp baykat yi def leen ay patron parce que état jàppalewul baykat ci dara. mais béykat bi nga xamante ni moo nekk moo nekk Sénégal di bay nga xamante ni bu paree même bu jaayee vingt mille vingt cinq mille mais yéene ko ko mais benn oto marocain ngi nii taxaw lan moo tax mu war fi dugute soble baa ngi nii nekk fi doy fii sëkk mais pour lan ñu ni soble bi dafa seer gannaaw ay fan rek a des ngir ñu màggal tabaski fii ci Sénégal marché bu yi saa si tembe mi ngi am soble bu bëree bëree waaye nag li ñuul si sow mi moo di wax bi nga xamante ne jëwriñ ju ñu dënk wàllum commerce bi fii ci Sénégal wax na ko ci ne commerçant yi jënd nañu ay stock dugal ko ci seeni magasin yi ngir mun a yokk prix soble yi